salaamaaleykum ñu ngi nuyu ñëpp képp ku ñuy déglu ak képp ko nga xamante ne di nga ñu seetaan bon di wax rek ne tey dañu ñëwoon fii ci mairie bi pour wax suñu naxar li ñu naxari te jaaxaluñu mooy ça fait un moment ñu ngi fii di xeex pour am subvention pour suñuy étudiants muy ñu nekk si différentes universités Dakar Thiès Ziguinchor bambay euh, Saint-Louis ku nekk am foo nekk mais mairie daf ñu joxoon benn première tranche newoon ñu. après benn moment bi mois de mars la ñu ko joxoon dinañu joxaat beneen bi mais on constate que depuis un moment mu ngi ñuy soofantal mu ngi ñuy aussi bañ a déglu suñuy wax ci lañ ne tey dinañ ñëw wax ak képp ku nga xamante ni yaa ñuy déglu dëkk Tëngéej di la wax ne situation bi noonu la demee parce que étudiants yi tey ñu nekk ci différentes universités à tout moment mën nañ leen jénnee fi ñu nekk te buñu leen jéenee catastrophe la instant yi ñu ngi waaj examen yi ñu ngi waaj yooyu kon buñu leen jéenee tey mën naa ne musuba mënul weesu loolu noonu ci loolu lañ ne tey ñu ngi ñëw fii wax suñu naxar nit ñi déglu ñu xam ne nag wax nañ bind nañ dèjà kenn faalewuñu ñu wax kenn faalewuñu léegi tey ñëw taxaw fii wax askan wi déglu ñu xam ne ñun li ñu waroon def yëpp jëm ci jàmm ak salaam ñu ngi koy def pour pour mairie déglu ñu loolu moo ñu ñëw fii wax suñu naxar xaar na fa parce que bind nañ communiqué dèjà kenn faalewuñu ñëw nañ fii ci mairie bi waxtaan nañ ak ñi ñu war a waxtaanal muy l'adjoint au maire waxtaan nañ ak moom muy madame Niang aussi waxtaan nañ ak moom te ñooñu ñooy ñooñu la seen liggéey jëm ci loolu mooy ci wàllum jàng ak jàngale wax nañ si wax nañ ak ñoom mais luñ ñuy wax tey dañ ñuy wax lii suba ñu wax ñu la lale mais dañ seetlu ne mën nañ ne daal li ñuy wax gisuñu si dara te mu ngi mu ngi bëgg a yàgg daal bu ñu sañoon ñu gaaw wax ñu lu leer wax ñu loo xamante ni day doon lu concret balaa tey ñu ñuy jénnee fële te loolu ñun mënuñ ko seetaan mënuñ seetaan suñuy camarade ñu leen di jénnee duñ def examen seen jàng moo si moo si nekk seen avenir moo si nekk loolu mënuñ ko seetaan benn yoon lii xaar ci maire bi mooy mu régler suñuy suñuy rek mooy mu régler liñ koy laaj mooy subvention deuxième tranche bi mu jox ñu ko rapidement ñu ñu parce que amuñ benn intérêt di yóbbu combat yi fu mu àggul si jàmm lañ woote nañ ñu fekk si foofu noonu amul benn sens ñuy def lu nga xamante kenn buggu ko waaw loolu lool dong moom lool dong la ñuy si ñoom mooy ñu fajal ñu suñu soxla ñu dem si ñu dem ci kii parce que nag fépp fu ñu war a jaar jaar nañ